personne la pour askanu Sénégal parce que nitu yàlla ni mu amee noonu la nitu seytaane amee arif na billaa ni mu amee noonu la arif bi seytaane am te Youssou Ndour xoola arif bi seytaan la ma maa koy wax sénégalais yi xoola leen wax ma nax lépp lu may wax saa xoola sama diggante sama borom laa siy xool ku deex sa bàmmeel la ce que ay dégg ñun lépp lu ñuy wax xoola dëgg la te yàlla tax ñun dëgg na ñuy dund te xoola ñu doomu aadama lijjantiwuñu doomu aadama noonu la demee quoi dëgg na ñuy wax xolo mu neex yàlla ku mu naqari xolo suñu yoon new si Youssou Ndour xolo maa ngi di wax benn affaire c'est framason ba pare bokk si benn lobby boo xamante nii mi ngi tudd Skull and moom la ko américain yi di wooyee Skull and foofu la Youssou Ndour bokku moo tax Youssou Ndour xolo si maçonnerie moo ëpp doole sax may la sum ay Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen fii Sénégal c'est un capot de la franc-maçonnerie man maa leen di wax loolu barki Baye Niass yaa ngi dégg moo tax Obama xoola xàmmee ko ràññee ko Obama tamit si la bokku ak ñeneen ak ñeneen si àdduna bi ñooñu baaxuñu si askan bi Youssou Ndour may la sum waay fii la toogoon naan day gaaruwaale naan xaw ma ay Ablaye Wade ay conseil xaw ma lan woyam yëpp ay gaaral la ay gaaruwaale yow moo tax tey yow yaa ngi ne nga àndal la moo tax yow joxoo conseil Macky Sall ne ko pétrole bi ak gaz bi ak ressources naturelles sénégalaises na ko teg si yoon la moo tax waxoo ko ma la sumwaay xoola rekam ak ñu nga xamante ñu ngi ànd ak moom inspection générale d'État épinglé leen si ay scandale la moo tax waxoo woyaloo Macky Sall ne ko yooyu noonu nañ ko teg ci yoon mu bàyyi jaay doole bi bàyyi injustice bi mais o sa intérêt la quoi parce que ànd nga ak Macky tey doo fay impo ok doo fay fisc demal nga fay fisc nga fay sénégalais yi seen impôt yaa ngi dégg ñun foofu na nga lay xaaree yaa ngi dégg Sénégal fii ba mu daj may la sumuwaay borom doole yi may la sumuwaay mais Sadio maane respect capot gis nañ ko muy tabax ay hôpitaux ay école est-ce que ngeen Youssou mu tabax ay école wala hôpitaux wala may la sumuwaay xoola ay jàq pour askan bi lépp may la sumuwaay ay rajo la loo xamante nii wala ay presse pour dolli ñoom seen promotion dooleel bon ak dooleel caaxaan dooleel seytaane may la sumwaay sa doom la moo tax jëloo ko yóbbu ko seen petit gaale yow nañuy waxal la ñun askanu Sénégal ñooy wax ak yow la am ñu askanu Sénégal moo wax ak yow la moo tax yow say jarbaat yow ak sa doom yi nga jur yóbboo leen seen petit gaale ñu dem fa ñu way léegi doomu jaambur yi nga yàq quoi ok léegi yow say doom nga casé leen placé leen fu baax ah? leen wax na askanu Sénégal yéen ñëpp xool ubbi leen seen xel bu baax Sénégal dëkku naa fekk la yeewu leen te ngeen dëggu ndax dëggu xola moo ñëkk te mooy mujj boo waxee si Youssou Ndour gaay noo yee kii xaa dafa dof kii mooy loolu Youssou Ndour Youssou Ndour mooy kan Youssou du yàlla du yonent may la sum nit kase bu dee ay xërëmaate wala ay sacrifice wala dara aca na ko dal sacrifier ma maan maa ngi nii rey ma ñun dëggal ak nañuy dund volontaire may la sum waay baax ak jub ak sell xola fa yàlla moo ñu jaaxal noonu la demee quoi boo wàccee may la su mu waay xoola sa yoon yaa ngi dégg di bëgg yàq société bi wala nga bëgg saltel islam ñu dal sa kaw ak koo munti doon yaa ngi dégg sa album may la su mu waay xoola jënduñu ko te dégluñu ko te bàyyi nang la déglu di sensibiliser sénégalais yëpp xoola ñu yeewu ubbi seen xel ubbi seen bët xamee ràññee te boycotté Youssou Ndour ndax baaxul si askan bi yaa ngi dégg buñ demee ba 2024 bu Macky Sall nee troisième mandat mu narasu ne noonoo àndu si dem ma la sum waay ñëw xaal si opposition bi lépp pour intérêt kase la parce que moom sénégalais ñun ñëpp xam nañ ni Youssou Ndour ma la sum waay il jamais défendu les intérêts du Sénégal c'est faux képp ku ko wax ma la sum waay c'est faux ndax Youssou Ndour intérêt kase noonu la demee ñun nag sénégalais ñun saa waay xoola noonu la demee quoi dofuñu te gëmmuñu nelawuñu voilà noonu la demee. leen wax ni baaxul santul yàlla te na ko ñëpp boycotté bàyyi leen di dem si ay soirée am noonu la demee. waaw malheureusement comme on l'a toujours di on est dans un pays dirigé par des dictateurs des arrivistes au pouvoir ñoo xamante nii may la sum waay ay baadoola nañ ay jaam nañ xama noonu la demee may la sum waay jël doole boo xamante ni da leen ko dénk ñuy jaay doole foog ni ñoom moom nit yi wala ay demi jeu nañ doo dara ñooy wax ak yéen te yàlla taax sénégalais yi tamit d'une part ils son responsables ndax may la sum waay man personnellement Khalifa rappeur bi may sensibiliser avant deux mille dix-neuf laa tàmbale sensibiliser nee deux mille dix-neuf xoola Salma ki dégage te xoola boo leen di tànn ngeen tànn président bu baax yërëm askan bi président bu am fulla ak fayda am jom di défendre xoola intérêt Sénégal président xoola bu am yërmande yaa ngi dégg malheureusement ngeen dem ngeen tànn le contraire dëgg la sax sàcc nañ élection yi ok c'est vrai mais bon malheureusement Sénégal yëpp dañu waroon wàcc si réew mi xeex pour Sall Macky bi xoola ñu dégager ko benn yoon courant bi nañ yooxu parce may la sumu waay am na yoo xamante ni benn som boo xamante ni soxla nañ ko am na ñu ko sàcc xam nga ñu bëgg ñëw sëf ko sénégalais yi nga daan fay courant par exemple ku daan fay benn léegi ñett lay fay baay lan nañuy dundee baay te yàlla tax baay yërmande moomoo leen nit yi baay Sénégal saa moomoo leen ko saawaay waay du seen alalu baay Sénégal baay ñun sénégalais ñun ñëpp ñoo ko bokku ñëpp si am wàlla di ngeen si amee wàll ñu noon nañ si amee wàll par force yaa ngi dégg teg leen ko si yoon may la sumu waay li gii mari saña il a le droit de manifester et le combat qu'il mène il le mène pour tous les sénégalais la demee quoi ba leen jàmbur pale boobu noonu mooy la su gis nañ fi saa waay xoola seen étudiant APR yi nga xam ni tekkiwuñu dara dem naan xaw ma dañ ko bëggoon a dee sax xoola dañoo tëb giri pale bi mujjul fenn ay nit yuy xeexal xaw ma Aliou Sall ñëw foofu di manifester fan la mujj baa leen jaay doole bi te yàlla tax sénégalais yi ñun ñëpp xam nañ bu baax nu mu demee xàmmee nañ ràññee nañ ay sàcc ngeen noonu la demee baa leen koom-koom réew bi ngeen di sàcc ay bëy cent soixante six mille ginaar onze mille kilo ñebe sept mille ay na ñàkk jom waay leen bëgg kenn du wax ngeen def leen neex seen scandale kenn du wax kon ngeen dee ñu lépp lu ñu bugg wax xool dañ koy waxti yàlla tax xoola suñ digganteex suñu borom moom nañuy ragal mais du suñ digganteex doomu aadama Guy Marius Sagna nañ ko libéré ñun moom suñ combat xoola wax la man du ma ko nëbb dee man Khalifa rappeur ah je subis les conséquences bi nga ma jàppee saa waay xoola 2018 nag ma jàpp avant élection yi décembre est-ce que yaa dégg bi nga la jàppee fii saa waay say mbokk ñoo siy soonu man sama combat yu may mëne naa ko mëne à travers le port de voix que je mène voilà su may waxal saawaay waay askan bi sama combat naa ko si mëne waxte la taax yaa ngi dégg mais ay génn si maire bi ay marche yooyu noonu saa waay bu ma si sax xalaat a gis quoi noonu la demee te barki Baye Niass may la su ma waay xoolal su ma amoon décision jël ko laa lay wax nii wax bu àgg sax dafa ko moom quoi ñoom xam nañ bu baax nu mu demee mooy loolu waaw vraiment sénégalais yi na ñëpp àndandoo be bokk benn combat benn slogan benn gëm benn mission lenn kase di ko nag xoola dugal si xelu boppu gaa yëpp ak xoola làmmiñu gaa yëpp na ko gaa yëpp di dund seen biir xol ak lépp lenn kese la xam muy lan Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw di ko nag xoola dugal ci xelu boppu gaa yëpp ak xoola làmmiñu gaa yëpp na ko gaa yëpp di dund seen biir xol ak lépp lenn kese la xam muy lan Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw di ko nag xoola dugal si xelu boppu gaa yépp ak xoola làmmiñu gaa yëpp na ko gaa yëpp di dund seen biir xol ak lépp lenn kese la muy lan Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw Salma ki dégage muy gaaw Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw Salma ki dégage Khalifa rappeur la yow dox muy gaaw